billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wasid baraay waj'al kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawin walil wali mbokk julli li mbokk taalibe yi mu ngi leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di nuyoo bu sell di nuyoo bu tedd tey jiital si nuyu beeg siyaar bi cheikh mouhamadul muntaxa mi nga xam ne mooy xalif général kull murit di ñaan suñ boroom mu bàyyi ko fi lool te mu wér lool ba lépp loo xam ne naal na ko ngi liggéeyal ko sëriñ bi suñu borom bàyyi ko fi lool te kàttanal ko ba mu àgg ko fa ko bëggee yëpp te ñu ànd koog moom yàlla na sottale yàlla na matale ba liggéeyub sëriñ bi ñoŋee ci moom ni ko mur yëpp di ñaanale eh, te nee na bu loolu bu ko suñu borom defalee na ko na ko def suuf nee loolu bu ko suñu defalee rek kon moom siñ bi liggéeyub siñ bi rek mu ñoŋ. mooy yitteem soxlawul dara kon yàlla na ko suñu borom bàyyi lu fi gën a yàgg lépp di gën a baax lu fi gën a yàgg lépp di gën a yéwén lu fi gën a baax lépp di gën a defaroo te loolu mbooleem jullit ñëpp xam nañ ci dara di siyaare mbooleem ñëbbat suñ daa gépp euh, ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne baaxoo noonu bàyyi xel ak di topp seen télé bii di Xasaay TV euh, fu mën a nekk ci biiram ak ci bitim réew moo xam ci YouTube bi Facebook ak fépp foo xam ne yéen ñu fay topp Euh, di leen mm, sant ci taxawaay bi ak ci bàyyi xel geeg lépp ak seen jotaay bi nga xam ne dañ koy yóbbuloo muy dénkaane sëriñ bi ci bis bi nga xam ne moom la dëgmal muy bisub xasit yi nga xam ne si ama moom taxa woote na ko ba tax na bis bu jër rek ñu indil leen ab yóbbal goo xam ne dañ koy mën a yóbbuloo ca bis ba euh, lépp ci njariñu xaside yi euh, lépp ci tawfiix xaside yi kon suñu jataay bi weesu ñoo ngi yemoon Euh, xasida yi nga xam ne euh, ak euh, liggéey yi xasida yi liggéey yi xasida def ci nit ak xasida gu ne nees la ñuy mën a xamee li ko tax a jóg ci liñ ci mën a xam ba du jotoon lim ay xasida yu bari yoo xam ne seen i jeexital ak seen i njariñ yoo xam ne da koy def ba tuddoon ci yu bare bare bare waaye ñu yemoon ci lu mel ne boo jëlee inam na abdillahi moom it day musle am na sax ñoo xam ne dañ koy takk waaye nag day musule lool am na ñoo xam ne sax àgg nañ ci di ko bindi ko takk ngir kaaraan gi nekk ci ne Abdullahi tanwiiru sudur euh, day neexal xel moom it euh, am na ñu koy def kiis nga xam ne xasida gu yéeme la euh, naka noonu si ndiini moom it day musle ci yu bari wakaan xaqan it day joxe xéewal waaye tamit day musle nga xam ne bis sëriñ bi nii sëriñ mu taxaa def nii sëriñ bu mag bi noonu la daan def bis dafa woo mag ñi jàngaloo leen xasida wakaan xaqan ñetti yoon ndax boobu am na fu jamono tolloon am na fu jamono tolloon ci metti am na fu jamono tolloon ci ci ci ci ay nattu am na fu jamono tolloon ci naqari am na fu jamono tolloon ci ñàkk kaaraange sëriñ bi jàngalu mag ñi ñett wakaan xaqan bi ñu ko jàngee sëriñ bi ne bari na ay ngeen di dégg ci àdduna te jàng gi ngeen jàng xasida fii moo ko tere agsi boobu nee nañu guerre mondiale bi la woon ak ak yi amoon ci àdduna nga xam ne fépp du fi ëpp ci àdduna moom doon yëngu di tàkk waaye Sénégal moom dara agsi wu fi woon nga xam ne ba ci sababu bind xasida gi sax moom sëriñ bi ci tolluwaay yii la woon tolluwaay eh, njàqare jullit ñi tolluwaayu eh, metti teg àdduna tolluwaayu eh, jullit ñëpp jaaxle ci fa àdduna tolloon ak kiris bu metti ba tax ca Mauritanie ci yenn xese yi dañ koy indee kon sababu wakaana sax loolu mooy sabab bi nga xam ne sërifu gànnaar boobu ñëwoon ci moom géntoon gént gi mel ni sëñ bi dafa jël on fi wa kaan xaqan alay naan nas nafaru muminina tënk ci ak xasida nga xam ne moo ak mu xëyee ñëw di ko wax sëñ bi laataa muy wax rek sëñ bi xasida nga xam ne xasida gi rek mën na lu ne te kon xam ne ne eh, xasida goo xam ne bis ba dana fa saf sàpp moom ndax bokk na ci nga xam ne xasida yi nga xam ne eh, si amun taxaa bëgg na leen lool ba yàgg leen yàgg leen digle euh, kon yooyu yëpp am na ci noonu wala xam ne moom noonu day jox xéewal tey day day day day musle fastajaaba fasta fastajaaba lahum rabbuhum nga xam ne ak yooyu nga xam ne ñoo leen nuru mu doon yu am solo kon yooyu yëpp di ay njëriñ naka noonu it euh, lépp ci njëriñu xaside yi ak ci yóbbalu bis boobee nga xam ne euh, xaside yi da koy def xasida yi mën na ko nga xam ne sëñ bi sax daara junñi ne bu ngeen demee ba jamono lëndëm dénk naa leen sama ñaari xasida yi mooy wakaana xaqan ak euh, minul baaxal xadim muy barraanil baaxi minal abraad yi nga xam ne euh, lu jamono lëndëm lëndëm lu jamono metti metti dénk naa leen sama ñaari xasida yi nga xam ne day mel ne ku ci jàpp doo yëg lëndëmu jamono te doo yëg metti di jamono te loolu ñuy dund xasida gi ñi koy jàng xam nañ ci dara xam nañ ci dara lool lool lool lool am nañ ci eh, lu wér loo xam ne ñi koy jàng ñëpp ñoo ngi koy yëg ci tawféex ci njariñ ci xéewal ci ak mucc ik fi nii it sëñ bi daana ko diglu lu bari moom sëñ mag bi nga xam ne junj nañ sànq wax nañ sànq ne ci ku ko masaana mbokkal nga xam ne xasida yi sëñ bi bis ba ne daa leen daana leen jàngaloo daana leen jàngaloo ba àggoon ci ku ko mokkalit gis nga lim bi mu la daan jox ci xaalis ñaar fukk juróom-ñett doomi ngudd eh, ak fasu naaru góor ba pare ne la maa la warlul àjjana nga xam ne sëñ bi daana ko jàngoon lu bëree bëree bëri xasida yi nga xam ne sëñ bi nii sëñ Muntaxa def da ko roye ci sëñ bu mag bi ndax sëñ mag bi daawul eh, daawul deñ di woote ndajum xasida di bind di woo ñi ñuy daje sëñ bi di leen jox xasida yi ñu koy yëkkati ba muy tàggoog sagoom te xam ne xasida yi li muy wax naan fu ngeen gis lu baax tey ëllëg fu ngeen gis lu baax sama xasida yi ak suufu Tuubaa ak suufu Njaaréem ñoo ko fa yóbbu daane nag man àdduna damaa taxata jub waaye lépp lu lu fi xaj yéen samay taalibe bi dinaa leen fi xaj-xajal loolu lu yéeme la loo xam ne sëriñ bi taxawee na ko nga xam ne am na kéemtaan bu yéeme boo xam ne euh, sëñ Maxtaar Penda Jeng nettali na ko ci xasida yooyu si ñu bindoon doon ko sottiloo sëñ Abibu ne ko xasida yii yii min yii balaa janta sox ba dañoo julli timis na ko na nga ko sotti na nga ko bind na ko maas te lu ci war a am na ca am bala ñoo julli timis daal koy jox kayit yi ak daay mu tàmbalee di bind ne tuut sëriñ bi bi bi ñu julli taksaan sëriñ dem leen ne sëriñ Abibu jant baa ngi waaj a so yónnee waat ndaw di yónnee di yónnee ba jant bi waaj a so am ko taxaw nar noonu sëriñ ne ko xaaral déglu ndigal daal di yónnee waat ndaw ne ko demal ne Habibu daanaka jant baa ngi bëgg a so sëñ Abibu ndaw li mujjee ñëw neen da koo téye sëñ bi yónnewaat geneen ndaw ndaw boobu bu ñëwee sëñ Abibu jël la des la des lam jotoon a bind dénk ko ndaw li ñëkk a ñëw lam lam bindagut dénk jël daaja dénk ko ki ki mujjee ñëw di dox di bind di dox di dox di agsi di agsi bi ñuy agsi si sëñ bi tomb ñu mbind mi mat sëñ bi ne nan nodd te julli bi ñu noddee julli sëñ bi ne ndax fere yaa ngi fi ndax ñu ne ku ñu ëpp ñu fi sëñ bi ne dama leen bëgg a leeral ci sama xasida yi sama xas yii di suñ borom daanil fu ngeen gis lu baax am na ak àlaxare sama xas yi ñoo ko fa yóbbu ak suuf suuf suuf njëriñ waaye nag ñun am na doon wax ju waaye lu fi xaj dina leen fi xaj xajal kon day ku bëgg ñodd lu baax faaw nga ci xasida yi kon day mel ne woote ci yamaam taxaw gi sëñ nag am taxu ñoo lu ñu lu fi xaj lu fi am jullit mën am rek lu fi xaj dina leen fi xaj xajal daane bis leen baax mu nit ak jinne ak malaaka dajee suñ borom dina woote yónni ab yónni woote kat mu woote ci kaw daal ne ana waxoon lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma jóg ñu ne ñu ne yow kaay li nga jëflante ak jaam ñi fii bokkoo ci wootekat boobu dina dellu siwaat ci ndigalu suñ borom ne am na ñi nga xam ne mënuñu binduñu woon waaye ñoo daan njëkkati mbind mi di ko jàng nee na jàngkatu xasida yëpp jub ñu seppi leen ci bis ko ne leen kaay leen yéen léegi li jëfandikoo ak jaam ñu fi bokk leen ci daal di ñëwaat ñu am na am na ñi nga xam ne mënuñu woon bind mënuñu woon jàng waaye daana dem ca barab yan koy defee di ko teewlu ngeen neex ngeen leen neex nee na ñi doon déglu déglu xasida daan ko dégg yëpp jub ñu ne leen kaay leen yéen li ngeen jëflante ak jaam ñu fi bokk li ngeen jëflante ak jaam ñu fi bokk leen ci daal ana ñi nga xam ne mënuñu woon jàng mënuñu bind waaye daan yëkkati seen alal seen xaddi di ca def ñi daan jël seen dërëm yëpp di ko def ci xasida yi jub ñu sepp leen ci bis penc ba ne leen kaay leen yéen li li ñuy jël leen ak jaam ñu fii bokk leen ci bañ bañ ñu andi woy nee na pang yi ngay gis ak eh, taxawaay bis penc baag xisaab baag eh, mbugal yaag jant yaag yooyu door a tàmbali fekk ñooñu dem am yàgg nga xam ne loolu xasida eh, rek daanaka moom moo ko man te loolu day mel ne moom la sëriñ bi woo kon mu doon lu am solo ba tey it indi nañ tomb boo xam ne Euh, ci wàcc ci ci yóbbal bi lay lay doon mooy sëriñ bi ku ne xam ne dafa amoon ay bindkat yoo xam ne bu ma saan bind ak xasida ñoom la koy jox ñoo koy sotti ñoo ko daan sottil xasida yi di ko bindal alxuraan yi ak yooyu ne ñooñu ñu sëñ bi fonkoon la nga xam ne sëñ ñoom la tudd woon sama waa kër yi nga leen yoraloon seen lépp fonkoon leen lool tegal tegal leen fa sori xam ne bindkat yooyu ñoo xam ñoo ko daan bindal alxuraan ñoo ko daan bindal ay xasida waxtu ne bokk na ci ñoo ñee sëriñ xam sotu jaxate kon war na képp kuy jàng xasida di yëngu ci xasida mu xam leen sëñ am Jaxate ak Seex Muhammadul Mustafa ci la bokkoon moom Seexul Xadim ak Seex Amadu Faadal ci la bokkoon ak Seex Masamba ca la bokkoon ak sëriñ Moodu Lamin Jóob Dagana ak sëriñ Demba Kebe ak sëriñ Abdu Sall ak sëriñ Njaay Siise sëriñ bi fonkoon na leen lool ñoom bindkat yi sëriñ Demba Kebe nee na sëriñ Tuubaa mas na leen woo ñoom bindkat yi ak guddi ñu ànd dem ba ca àll ba sëñ bi julli fa ba noppi àndaat ak ñoom ñëw ba tey moo ngi leen naan sëriñ bi sëriñ Modou ba tey sëriñ Modou Lamine Diop nee na sëriñ mas na ko am ay xasida yu mu ko doon binduloo di ko ko sottiloo fekk mu wànneen ba tax mbind ma yeex lool sëriñ bi di yónnee ci moom fekk mbind ma yeex lool ba ko sëriñ bi yëgee da ko woo ba mu ñëw mu ne ko fabar sa loxo teg ci sa bët ne te wax ne wan neen bàyyil bëti taalibab jàmbur ba mu ko defee defaat ko mu dal di wir wan nga daal di deñ sa sax sa lépp rek ngir sëñ bi fi mu tegoon xasida yi sëriñ Demba Kebe it leeral nag moom dafa bokkoon ci bindkat yi nee na sëriñ bi bëgguloon masque ak faf te mooy di bind baat farmaala ci dara ba tey bëgguloon sàdd ak dëpp te mooy lu mel nii nga xam ne indi na ko sàdd ak dëpp ak di bind baat àggul nga di ko àggale ci waneen bind ak mbind mu sakkanul nee na sëñ bi dafa bëggoon mbind mu sakkan te leer sëñ bi nag ñi mu daan bindloo xëy na bokk na ci li waral am mbindam bariwul mbindum loxoom loo ko gis bariwul loo ko gis maanaam ndax dadaa def bu génnee ak xasida ba ñu sotti ko da koy jël denc fu mu bind xasida rek da koy génne jox ko bindkat yi bu ñu ko sottee nee nañu li si ëpp da daan jël xasida gi mbindum boppam dencaat xëy na itam li waral néew gi mooy xëru taalibe yi nga xam ne ku ci yor lu bind doo ko nangoo wane xëy na moo waral néew gi xëy na sax xëy na ñi koy am na ñu koy am waaye ñu néew lan ndax gi nga xam ne murid xër nañ ko nga xam ne ku ci yor mbindum sëriñ bi doo ko bëgg a génne di ko wane wala yu demee noonu ba tey eh, indi nan lépp ci yóbbal bi mooy wuuteeg yenn baati xasida yi maanaam wuute yi nga xam ne day am ci yenn baat yi loolu li koy waral léeg-léeg nag mooy ki ko bind moo koy yàq loolu nag bu amee day aajoo nga gëstu ko ba am yax bu wér ndax bari na bindkat yoo xam ne dañuy rafet lool way waaye dégguñu naxu kon loolu lu mat a bàyyi xel la moo waral lii sax mu taxaw taxawal muy eh, université bi taxawal këru xasida goo xam ne ak woo gi mu woowoon ñoom sëñ Hamza ak ñoom ñoom sëñ Alaaji ak mboolem ñi nga xam ne ay borom xam-xam lan yëngu ci xasida ñoom sëñ euh, Xalil ngir ñu saytu mbindum sëriñ bi ak di ko topp ak di ko gën a topp di ko gën a ñoŋal di ko gën a euh, bàyyi xel ba euh, mbind yi nga xam ne tàmbali na yëpp ci liggéey sëriñ bi ak këru xasida yi nga xam ne bu sottee it daanaka yëpp euh, dinañ ko mën a saytu ci kat yi ci gën a wéral topp mbind yéeg yooyu noonu ba nga xam ne yenn baat yi nga xam ne da ci daan am ak yàq yooyu yëpp day dinañ a kii waaye tamit léegi-léegi itam nga gis wuute goo xam ne li koy waral sëriñ bi moo ko soppi woon yéen yéen daa gis ay yoo xam ne sëriñ moo koy soppi ci biir xasida ndax sëriñ bi day bind xasida ñu dem ba ci biir amaana mu soppi wayen wala indi ci aw bayit mel na xasida indi inni sammaytuha nga xam ne mooy wajhu nabil muntaxal mu jàmmali ahsanu min kulli munirin mukmali ahmaduna al muxtaaru nuuru naasi mawliduhu muzaxsihul xannaasi bu njëkkoon xayru naasi la ñu daan jàng ci mbind mu njëkk ma waaye ba ca kéemaan googee feeñee la sëñ bi digle ñu koy jànge nuuru naasi kii ndax da ci amoon wax nañu daa amoon ko doon jàng ak guddi ba mu agsee ci eh, eh, far làmp yit làmp yëpp fay ba àgg ci bi mu ci agsee sëriñ bi digle mu baamu ko teg ca nooru naa si bi mu ko defee làmp yëpp daal di takkaat nga xam ne nee nañu am na sabab bi ci xayru naa si sëriñ bi ne nañ ko baamu wax nooru naa si bi mu ko defee nee nañu euh, làmp yëpp daal di takkaat kon loolu am na ca kon bu njëkkoon xayru naasi la ñu daan jàng waaye ba ca kiimaan googee feeñee la ñuy jàng nuuru naasi su ko defee ñi xamul loolu dégguñu ko te yoroon xasida xasida gii ba léegi kenn du leen mën a jàngloo nuuru naasi ñoom xayru naasi la ñuy jàng ndax xamuñu woon loo te ba léegi ñoom xëy na waaye ñi nga xam ne xamoon nañ tolluwaay bi eh, ñii dañuy indi nuuru naasi loolu da ciy am léeg gis nga gis wuute goo xam ne li koy waral du soppeem waaye day digle ak baa am ñu koy baamu di koy bind di ko di ko baamuwaale mel ne azhabta fawran nisyaana kulla man lay laysa yakunu mu'minan yaza saman nga xam ne fi mu ne benn boobu rek moo nekk ca wakaana xaqan moo ca ñëw waaye sëñ bi baamuloo gi mu waroon baamuloo euh, waa barzaq yi moo waral ñu daan wax musliman wax muxsinan tey ba tey nee nañ sax daana wax naan góor ñi nañuy jàng azhab ta fawran jigéen ñi di jàng azhib li ghayril muminina loolu it ba tey dikk na ci eh, kon yooyu yëpp di ay leeral yoo xam ne ak ay tolluwaay yoo xam ne day am ci xaside yi nga xam ne kon day am yoo xam ne sëriñ bi moo ko doon digle ñu koy baamu comme lu mel ni exemple bi joxe ci wakaan xaqan nga xam ne waa barzaq yi nag ku leen xamut mooy eh, jigéen ñi soxna yi nekkoon ci kër sëriñ bi nga xam ne ginnaaw sëriñ bi kenn sañu leen woon a doon ni mu meloon ni ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñooñu si mi daan di leen jàngaloo euh, xasida daan di leen jàngaloo wakaana lu bari nee nañu bu ma saan a jàng az hëb si war a kulla man lay si yakunu muminan ya zasaman si mi day wax ne baamu leen ko wax musliman ñu si war a kulla man lay baamu waat ko wax moxsinan ñu baamuwaat ko wax az hëb tax fawara si war a kulla man lay si yakunu moxsinan ya zasaman nga yëpp baamu yooyu sëñ bi moo ko doon digle waaye boo demee ci téere bu mag ba euh, ak ci diwaan yi ak bu bu jëkk ba benn bi rek moo ci ñëw waaye baam bi ko fi sëñ bi moom baamaloo tax bindkat yi di ko baamu ci biir téere bi nga xam ne yooyu da ci am ak lu mel ne nooru naasi gi nga xam ne euh, day mel ne ay soppe la ak lu mel ne yeneen yu leen nur yoo xam ne daanaka sëriñ bi euh, da ci am yooyu yëpp day am ci xasida kon mu doon yéen yoo xam ne da ciy am kon bis boo xam ne li ci dëxëñu ci ay yiw bari na lool waaye li ciy dëxëñu ci ay njariñ bari na lool waaye li ciy dëxëñu ci ay tawfiix yoo xam ne bari na lool nga xam ne Cheikh Mouhamadou Taxa lam ca xam daanaka ñun sax xamuñu ko lam ca joxoñ ñun xamuñu ko mënuñu koo xam dëgg dëgg dëgg lam ca lam sa fas ñun mënuñu ko xam dëgg dëgg lam gis ca bis ba booba tax mu woote ko dëgg dëgg dëgg xam nga ñun mënuñu ko xam moom ak boroomam moo ko xam ak Sëriñ Tuubaa mi koy liggéeyloo ak Yonent bi sallallahu kon ñun liñ ci mën a dimbali ñu wuji ab wooteem rek te mboolem njëriñ yi ñu xam ne wax nañ ko ci xasida yëpp ci li xasida man ak li xasida mën a jëriñ ak li mën a defal jullit bi li mën a defal taari bi a def ci àdduna li mën a def ci mboolem jullit yëpp mboolem doomu aadama yëpp ci mboolem taalibe yi loolu xasida moom dara gënu ko cee kawe ci li mën a def ci njariñ ci jàmm ci àdduna bépp waaye nag li mën a fànq ci ay balaa li mën a fànq ci ay musiba li mën a fànq ci ay nattu lu mën a fànq ci ay mbas loolu xasida moom mën na lu lu raw loolu te loolu lépp suñ jotaay yii ñu doon topp ku ne gis na wax yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci xasida yi ci njariñ yi ak ci li manee dàq balaa ak bekkoor ci ay tawféex kon bis la boo xam ne nañ ci gën a sóobu gën a koo teewloo gën koo sellal ngir jëmmi sëriñ bi bu suñu alal suñu xel suñu xol suñu jëm suñu yéene nañ ci def suñu lépp bu ñu bàyyi dara te xam ne bu dee bu dee as gor ku si ne dañ doon woote bisu bopp sëriñ Touba da la fa fekk di la defaral bis ba kon bis bi sëriñ Touba woote bis boobu suñu dara waru koo fekke ndax ku si ne si ñun ay bisu xasida ci daayira yi yaa ngi doon woote ay bisu journée culturelle ku si ne si daayira yi yaa ngi doon woote ay bisu ngir xool bëggug sëriñ bi ngir am bi nga ko daan defal sa kon bëggug sëñ baa ngoog tànnug sëñ baa ngoog wooteeg sëñ baa ngoog nga xam ne amul lenn maanaam yaqin bu wér ngay am ci ne lii moom bëgg-bëgg sëñ bi la moom te loolu ñun murid yëpp xam nañ ko ku si ne yaa ngi doon woote si bis ngir li ñu yël sëriñ bi sëriñ bi nag woo woo nañu ci bisam ngir liggéey looñu te sëriñ bi li ñu yël sëriñ bi ak sëriñ bi liggéey loo la daa bokkul kon sëriñ bi liggéey loo nañu ana lu ñu liggéey loo mooy bis bu tedd boobu bi nga xam ne moom la ñëpp di waaj kon nan ko waaj nan ko waaj bu kenn des sëriñ bi wootuwu ko eh, Dakar wootuwu ko Thiès wootuwu ko Saint-Louis Touba la wax ne képp ku kuy ab taalibe bi di jàng xasida te yàlla mën na la ko amul genn ngant goo xam ne ku am ngant xam nga sa diggante ak sa borom suñu borom moo ñu gën a jege suñu mën a xool waaye képp koo xam ne amul ngant gu la ci tee dem bu dara des na murid yëpp waaj daayira yi ahlu xasida yi raiskat yi nanu waaj te bu ñuy waaj ñu mel na koy màggale yóbbu suñu jumtukaay te noonu la ko sëriñ bi bëggee noonu la ko sëriñ Yusuf Jóob waxe ak sëriñ Xamsatu ku mu daan màggal si wala ku daan cant daan def bi say bisu xasida sa baas yi nga doon baas say matériel sonorisation bi nga xam ne moom nga daan say basang say bool say cin yi nga xam ne da ko daan def say bisu bopp ci bisu sëñ bi la gën a yella kon nan dajale yëpp bu bàyyi dara bu ne damay dem ñii rek pour teelu wala damay dem déglu déedéet da nga dem ngir jëmmal bis bi ku ne jàpp ne bis bi yow la def loo nga xam ne du bisu isu tarxee du bisu euh, kenn bisu yoonu murit gépp la waaye nag bisu jullit yëpp la nguur bu ne jàpp ne du question ne ay waa daara sàngam wala sax maa yéene waaj seen bis bi déedéet bisum ñëpp la bisum taalib yëpp la bisum murit yëpp la bisum képp koo xam ne yaa ngi bëgg yaa ngi ut yaa ngi yaa ngi yaa ngi sàkku bëgg-bëgg Sëñ Tuubaa ak ngërëmal Sëñ te xam ne ngërëmal Sëñ Tuubaa ay yes peq moo ngi ci fajuk aajo yes peq moo ngi ci bis la boo xam ne mooy bisu saafara bisub mucc bisub tawféex bisu bis boo xam ne natt ba la daloon sax boo ñëwee ci bis bi suñu borom ko ci bis boo amoon boo ñëwee ci bis bi si yeesal sa passif suñu borom dindi gàllankoor googu njàqare boo amoon bis boobu boo ñëwee bisu dindi njàqare lay doon lënt-lënt boo amoon boo ñëwee bis la boo xam ne bis bii leeral seen lënt-lënt la waaye moo dem aajo joo amoon ba nga doon sàkk loo xam ne mënu ko am ci téeméer at boo ñëwee ci bis bi suñ boo ko boo dimbalee bis bi suñu borom defal la aaju jooju defal la fajuk aajo googu waaye lépp luy tiit di ko ragal te di ko daw boo ñëwee ci bis bi te defe ko ni ko suñ bëggee suñu borom musal la ci lépp looy tiit di ko ragal di ko daw lii boo xam ne sax ba ci xeetu liggéey yii nii ñi nga xam ne dañ naan dama am gàllankoor dama am cet ñu naan am liggéey bis la boo xam ne ku fay dem sax lépp lu nekkoon sa yaram day deñ mooy bisub raxas bisub raxasu bisub set bisub sell bisub yeesul waat sëñ bi rëpp ci lépp lu dul loolu loo xam ne gàllankoor la waaye bisu bii la waaye bis moo tax bis bi saaroona fi xayraatil bisu njëkkante la ci yiw ak ci lu baax ku ci man rek moo lay man ci at mi te mooy bis bi ubbi at mi ndax muharram mooy weeru njëkk ci at mi bis boobu war a doon bis bi njëkk ci at mi wala ñaareel bis bi njëkk ci at mi nga xam ne bis boobu mooy bis bi leeral at mi at mi kon bis la boo xam ne bisub njëkkante la bisub tawfiq la kon noonu ñu ko nosee ci programme yi ci kuréel gu ne ci daara yu ne moo xam Thiès moo xam Diourbel moo xam saint moo xam Casamance moo xam euh, euh, ba euh, moo xam foo mën a nekk ci biir réew mi daanaka gars yi nos nañ ko nosin yoo xam ne kenn du génn nañ ma ci moom ñëpp ci bokk parce que bis la boo xam ne sëñ bi dafa ne koo xam ne seen ñaan yi wér na sell da ngeen ko ci boole képp kuy kuréelkat képp kuy dóoskat képp kuy rajaskat da ngeen ko boole ci bis bi nga xam ne ubbil nañ ko ñëpp bàyyiwul kenn kon bis baa ngi noonu te kuréel yu ne ci raison bu ne jagleel nañ la penc bi ngay jàng jagleel na kenn ci këru ñëbbat Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne foofu ne la jagleel kon bépp boo xam ne daara boo xam ne yaa ngi ci ci réew mi moo xam foo man ne ne ci raison boo nekk rek raison boobu am na fa ay jëwriñ yoo xam ne ñoo nga ñoom ñooy saytu liggéey bi jëwriñ yooyee ku si ne am na barab buñ la dël nga xam ne fa ngay dundale bis bi comme sëriñ bi dane li tàmbale ci jumaa ji ba daaru mi nan li wër dëkk bi fu fi nit xaj nan ko fa dugal fu fi nit xaj rek nan ko fa boobu mu doon bis bu fees dell bis boo xam ne dañuy bis boobu moom booroom moom dañuy tàncaloo moom nga xam ne fenn du vide ñu dundal xasida ni ko sëñ bi bëggee te buñ ko defee daje cee ngërëmal sëriñ bi kon daal euh, loolu moo leen mooy suñu euh, jotaay bu mujj ci euh, nenkaane sëriñ bi ci wàccaay bis bii ñu jëm ci bisub xasida yi xam na comme day mel ne bis bii buñ si jugee fii suba ba ginnaaw suba dañuy dugg ci bis bi Euh, kon euh, day mel ne euh, fii ñu toll dañoo ne temm rek ci bis bi ne temm ci liggéey bi ne temm ci taxawaay bi moo tax xam naa tey mooy tëj-tëj bi nga xam ne dinañ ko def ci wàccaayu bis bis bi comme ni leen ko doon toppaloo ci fan yi jàll yëpp ci xasida yi ak ci lépp kon ñu ngi jox di daje incha allahu rabbi ci bis boobu te di leen ñaanal suñu borom defal ñu tawfiq ak taysiir ban dajeek ngërëmal sëriñ bi dajeek bëgg bëgg sëriñ bi sëriñ bi am li mu bëgg ci ñun. Euh, te bu amee li mu bëgg si ñun rek suñu lépp baax suñu lépp yéwén euh, kon ñu leen di baal àq te di leen baal àq di saare mboolem waa daara yëpp ak mboolem jullit ñëpp rawatina mbokk taalibe yi topp seen jotaay bi euh, te di leen baal àq te di leen baal àq di suñu borom defal ñu dégg ak topp ci daraje sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. عليك يا مختار بالتالي المختار بالجاد بكل